waaw yàlla dafa def si ñi jëkk dox mbirum bërëb bi laa bokk euh, ci ndigalu président Ablaye Wade booba ma nekk ministre am waaye aussi lu jiitu loolu dama teel bokk ci bërëb bi booba avocat rek laa man ak mbàkk yu ñoo doon euh, membre yi gënoon tuuti kanamu ñoom Ngom ak ñoom bi liggéey bi naree tambali ba nu jot fii yàlla mën la dimbali man maa toppatoo titre foncier bi ci ndigalu président Ablaye Wade ba dem jox ko Serigne Cheikh Sidi Makhtar ak yeneen ak yeneen kon tey bu yàlla defee yàlla dimbali nu liggéey bi ñu tàmbali ko ba mu agsi fii ba nga xam tahau inauguration moo def il faut dan ma bernel taxaw taxaw dañ ko war nit wala nit ñi dañ ko war lekk wala dañ ko war naan mu dugal sama loxo bu baax sante ko Sëñ Tuubaa sama cëru taalibe képp laa ñëwee amul beneen beneen kii boo xam ni mën nañ ko si xalaat ñëw wu ma lu dul taalibe moo tax ànduma lu dul samay mbokk ànduma lu dul samay mbokku taalibe pour ñëw sant si sëñ Touba ndokkeel sëñ Muntaxa si li ko yàlla defal mu nar incha allah su àjjuma jotee jiite fii fekke ubbi jumaa ji kon ñu sant yàlla bu baax